Niass mm, allazi arsalani ila cheikh allazi saatahdasu anhu wa huwa ustaazi wa murabbi cheikh alhaaji karaw sëriñ daara alhaaji kiraw uh, fa taxaddusu an hada rajul wa qabla taxaddusi anhu la budda min taxiyati taqdirin wa ijlaal li xaadimil umma sayidi wa mawlaaya cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass alladi qarara fi al-aam al-maadi bi tasmiyati haada al-aalim al-kabiir bi mawlidi cheikh al-islaam Haaj Ibrahim li istihqaaqihi li zaalik fi majaalaatin cidda wa kazaalika ash-shukru li lajna ath-thaqaafiyya wa alaa ra'sihaa eh, ibnu cheikh al-islaam سيدي محمد سراج الدين وجميع أعداء اللجنة ونهنئ جميع أبناء الشيخ الإسلام حاج إبراهيم بهذا اليوم العظيم وكذلك جميع المقدمين فالتحدث عن إمام طيبة وعالمها وما حولها تحدث عن قوة الشيخ إبراهيم في صناعة الرجال لأنه لما كان شابا ترك التجارة وترك كل شيء في تيبة وهجر وهاجر إلى الله ورسوله إلى خليفته في كوسي خليفة الله في الأرض كما يسميه هو هو شيخه ومربيه wa muallimuhu wa habibuhu fadilat cheikhul islam haaj ibrahim Niass fa mawduu hadisina al yawm al aalimu al allaama al ustaaz al haaji Karaw huwa aalimun bi kulli maana al kalima lakin indama zahaba ila kuusi taallama uluma naqli wal aqli lakin cheikh ibrahim agraqahu fi bahari lxaqaiqi walmaarif summa marra murura alkiram fi jamii funun walakin bilitqaan summa rajaca ila tayba min karma kanji min ustazihi e, fadilat cheikh Ousmane Ndiaye wa rajulu lahu imtiyazatun kathira fa masalan إذا نظرنا إلى امتياز هذا الرجل سنجد أنه حافظ لجميع المتون التي كان يدرسها بما فيها الأول والثاني kaana yanaamu ala salabi sabilihi wa yanaa wa yudarrisu jamia alfunun fi hadihi almawaad wa xaasatan masalata yuxraju yuxriju kaana yashraxuha ala raml lam yakun yamsiku alkitaab wa kazalika tamayasa bizuhdi wa tawaaduu fi almaakili walmashrab walmajlis yumkinu li ayi tiflin an yuqifahu wa yujlisuhu haysu shaa kaana akrama annaas fi lbazli walata wa xasan lil aramin walfaqirat wa kaana yuti bi saxaa'in fawqa alaada xata zanna ahlu tayba ñaseen annahu yastaamilu tabdil kaana qawiya al adillati walbarahin fi aqdiyatihi wa fataawihi wa ashharuha dariixu saxaabi almazcuum fi ñooro kaana eh, طويل الباع في التأليف وأمينا في ذكر مصادر ذكر المصادر والمراجع وفي كتابه نصيحة الإخوان يقول ذكر المؤلف حديث الذي ذكره القاضي عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل لك نصيب من الرحمة التي أرسلني الله من أجلها قال نعم qaala maa hiya nasibuka min arrahma ajaaba jibril kuntu xaa'ifan ala suui alaaqiba mundu an xalaqa allahu aadama xatta jaa'ani aayatun itma'antu minha fa sababu alxawfi an iblis kaana min abadi nnaas falamma abaa an yasjuda li aadama laanahu allahu wa taradahu wa kuntu axaafu an yakuna masiri kazalika mundu an xalaqa aadama allahu aadam xatta arsalaka allah kuntu fi hada alxawfi wa hada alrox wa min rahmatika indama nazala alaya zi quwatin inda zi arshi makin e, fi dalika alyawmi ariftu annani fi amaan mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di nuyu xalifa bi di ko jottali nuyoo suma nuyoo ak nuyoo njabootu sëñ daara alaaji karaw bi nga xam ne alaaji Modou Niass moo ne ca bopp ba di ko jottali itam commission bi nga xam ne ñoo organisé lii gannaaw buñ ndokkeelee mbooleem njabootu cheikhul islam haaj ibrahim góor ak jigéen mag ak ndaw ci bés bu màgg bi nga xam ne comme ni ko oustaz Baye Thiam waxee yowmu dikra cheikhi bi tayba ñaseyni yowmu ciidun li ahli yowmu ciidin li ahli cilmi lyaqini fa huwa ciidun lilkawni min gayri daawa fasaluni ma bayna kuusi wa siin mais buñ ne nañ waxtaan ci sëñ daara alaaji karaw ci bés boo xam ne mooy bésu juddu baay fii ci tayba ñaseen mooy ñu waxtaan ci doole ak kattan bi nga xam ne moom la yàlla mayoon Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahim ci mayam yu bëri may gii nag sotteekoo ci ci man gi mën a defar góor góor goo xam ne dafay man mboolem góor yi ndax kural fahama السيد الحاج عبد الله المشهور بالحاج كرو قدمته في الإسلام والمسلمين وفي تعليم المريدين وفي المدرسة wa kullu man fi tayba wa man hawlaha fa huwa muqaddamun alayhim wa man xaalafani fi haada faqad asaa amri wa man ittabaahu wa ataahu faqad ittabaani wa ataani wa man asaahu faqad asaani waffaqana allahu wa iyaakum jamiican lima yuhibbu wa yarda wa daawa bi mannihi qulubuna almarda wa salaam Ibrahima alxaaji Abdoulaye Niass bàyyi bi mu koy samp gannaaw bu mu ñibbisee ba wane moo fi dàq jàng moo fi ëpp xam-xam te bàyyi mi ko jàngaloon ràngal ko garaatab alxaaji karaw lépp lu mu xam maa ko ko jàngal te loolu wax na ko xalifa bi cheikh maa ne ko lépp lu ma xam sa baaya ma ko xamal bi mu koy samp tay ba daf ne gannaaw bu ma sante yàlla maa ngi jëmee suma yoo ci mboolem ñi nga xam ne ñoo wéeru ci man askanu ci man te dëkk tay ba ñu seen ak ci li ko wër ñoom ñëpp góor ak jigéen ndaw ak mag maa ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu li waral sama leetar bi mooy ma yëgal leen ne sëriñ daara alaaji karaw moom laa jiital ci yéen jëmte mooy borom xam-xam bi nga xam ne mooy ku ràññeeku ko di fóode ji nga xam ne mooy fóode ji gën a dégg xam-xam muy ki nga xam ne mooy sang ba di alxaaji abdullahi almashhur di ki ñu siwee ci alxaaji karaw wala alaaji karaw mu ne ci lan la ko jiital moom Baay mu ne fil islaami jiital naa ko ci lépp loo xam ne mi ngi aju ci diinal islaam fii ci Tayba ak li ko wa fil muslimiina jullit ñépp lépp loo xam ne moo aju seen mbir jiital naa ci sëñ daara alaaji karaw wa fi taalim lépp lu aju ci jàng ak jàngale jiital naa ci sëñ daara alaaji karaw wa fi taalimil muridina ak ta jàngal taalibe yi fil madrasati ci école bi mu ne wokkul mu ne képp koo xam ne ci Tayba ak li wër Tayba na la wóor ne ki baay jiital ci yow te mat ko mooy sëñ daara Karaw bàyyi ne képp ku uuteeg man ci lii mooy nga suma ku ko topp moom sëñ daara Karaw topp nga ma ku ko mooy mooy nga ma yàlla nañu yàlla may ñu dëppoo ak topp te itam ñun ñëpp yal na yàlla euh, saafaraal ñu suñ xol yu feebar yi Ibrahim Alhaaj Abdoulaye Niass te nag buñ fekkee ñi ngi tey ci ci gàmmu nit la woon koo xam ne euh, ku amoon personnalité la sëñ euh, borom ki samp gàmmu gi di Mawlaay Alhaaj Abdullah bi mu ko sampee 1985 Baye Omar Fati Diallo njëkk koo gàmmu keroog kontaan na moom Baye Omar Faty Diallo ba séddale enveloppe bi ñu ko joxoon yépp ci néeg biñ ko dalal ne Omar gàmmu na ba gàmmol Baye gàmmu boobu bi sëñ bi ñu ko buggee jàppaat ma Mawlaay Alxaaji Abdoulaye dafa diisu sëñ daara laaji karaw mu ne ko ala baylaaji loo gis ci ni ñuy jàppee gàmmu gi mu ne ko nañ ko jàpp ci bés bi mu doon te fixé ko ci mooy xama saasar rajab mu ne ko ah baylaaji ñun ay baykat lañ de bu ñëwee tolloog nawet mbaa mu tolloog noor nu ñuy def mu ne ko ñu def na sa baay daan def ci yonent bi gàmmool na ko nawet gàmmool ko noor gàmmool ko mbóoyo gàmmool ko sedd jàngal ko tàngoor nu mu ñëwee ñu gàmmool na ko waaye bis bi mu juddu nañ ko ci fixé Mawlaay Alaaji Abdoulaye fixé ko ci kon nit la woon koo xam ne xam-xamam ak xuwatu euh, sax siyaam lu doy waar la danaa ci nettali boo xam ne moo ma ko nettali te waxtaan nañ ci maag moom ci kanam xalifa bi alxaaj abdullah maanaam xaadi la woon li ko dalee fii ba Gàmbi fii ba Ñooro ba ba Sukuto moom mooy ki nga xam ne moo fi daan firi alquran moo fi daan taxawee lépp lu lislaam aju moo daan miiras ñépp waaye nag bu dara desul nag lu mooy ku tawaadoox la ku oyof la ku dëddu àdduna la xale mën na koo taxawloo fii mbaa mu taaj ko fi waaye bu xam-xam jotee ak fulla ak fayda ak personnalité dootoo ko xàmme bés am na koo xam ne fii ci ñooro dafa wax ne gis naa fi bàmmeelu saxaaba ci ñooro gii euh, Eliman euh, Maba ka nga xam ne moo fa nekk ci ñooro euh, autorité yi biñ gisee waa Dakar ak waa fu ne bokk seen sëri rabal ak seeni enveloppe ñëw fees fi del dañoo ñëw ne ko waaw lii doo ñu ci waxal ndax lii dëgg la wala du dëgg mu ne leen kii de man la def njaati gi am na loo xam ne mënuma ma waaye sëriñ daara alaaji karaw imaamu Tayba ñu seen su ngeen fa nee bu nekkee bu ngeen demee bu nekkee ci dëgg ñu wax ko ko mu wax leen ko bu ci newut mu wax leen ko ñu taal oto ñëw ñu ne leen mën nga kër ma jëbel ca bay mbay ñu fekk ko fa ne ko ndax yaay élimaan Tayba mu ne am na ñu ma doon seen élimaan de ñu wax ko yëf yi ne nañ dem sama kër ma waaj bañ ñëwee ba agsi xoolal ful ak fayda euh, autorité bi nga xam ne moom mooy commande mooy mooy chef de canton bi wala mooy préfet bi dafa taxaw soltaneem xëcc seesam janoo ak waa ji ki nga xam ne moo wax ne bàmmeelu saaba ne ko ebee eh yow da ngaa wax ne bàmmeelu saaba nga fi gis mu ne ko waaw bàmmeelu saaba laa fi gis mu gees sëñ daara laaji karaw ne ko sëriñ bi loo ci xam mu ne ko xaw ma ci dara yaay laaj wala may laaj bu fekkee yaay laaj continuer bu fekkee man maay laaj sa sées bi da koy jël nga toog ci gannaaw autorité bi jóg toog ca gannaaw sëñ daara alaaji Karo jege waa ji jox ko ñaari loxo boole ko danga ko xaalis bu bari mu ne ko téye lii indiwu ma li ma indi benn laaj la rek boo ko tontee jotaay bi jeex mu ne ko mooy lan mu ne ko da ngaa wax ne gis nga bàmmeelu saxaaba mu ne ko waaw dama fee gis bàmmeelu saxaaba mu ne ko laaj bi ma lay laaj mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àdduna ñaata saxaaba la amoon ak saxaaba bi nga xam ne moo gën a gudd tànk ci Afrique fan la yemoon soo tontoo laaj bi rek jotaay bi jeex waa ji mënu koo tontu mu gestu autorité yi ne leen su ngeen gisee sàcc ak tappalekat nu ngeen koy def ñu ne dañ koy ceene mun a jël leen ceen gi ngeen def ci loxoom te digga du toj noonu la daan attee noonu la daan miraasee noonu la daan doxalee lépp loo xam ne lii moo aju ci diina ji ku bëggoon Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahim la ba boo ko joxee addee ju rafet mu ne la héehée lii de sëriñ bee ko yow ku tabe woon la ndax dem na ba nga xam ne jigéen ñu néew doole ak ñi nga xam ne ñooy fukaraawo yi bu toogee ci pénc mi ak bu toogee ci këram yoor yoor ku ñëw mu dugal ci loxoom génnee jox la poosam ku ñëw mu génnee jox la bay waa tay bay yépp dañ ko doon tuumaal ne dafa am tabdiil ngir tabe gu bëri ak man a maye bokk na ci tabem googu keroog bi muy génn àdduna ñu bëree ko ameloon bor waaye bi mu demee ba mënat sa dox carnet bi ko ñépp ameloon bor dafa jékki ba wéet ci néegam daal di raam di raam ba àgg ca cabinet ba sànni ca li nga xam ne li mooy carnet mboolem bor yi nga xam ne yi moom lañ ko ameloon nit la koo xam ne bëgg gi mu bëggoon cheikhul islam haj ibrahim nekkoon na di loo xam ne lim ci doon wone moom waxtu wu wonee xam-xam waxtu wu wonee daraja ci xam-xam waxtu wu doonee ragal yàlla waxtu wu wonee lu mën a doon dafa bëgg a wone ne cheikhul islam haaj ibrahim mën naa jël benn waxambaane boo xam ne ba muy ñëw xamutoon dara mu mokkaloo ko alquran jàngaloo ko mboolem téere yi yar ko tarbiya ko ñëw ko samp ko ci tund wi muy firi alquran di ko firi fii ci tayba di ko firi ca cubbeen di ko firi ca Sokoto di ko firi diggante fii ak Gàmbi te loolu nekkoon na liggéey bu rëy boo xam ne baay moo ko def moo tax leetar bii ma jàng ngeen dégg ko sëñ Daara Alaaji Karaw taalif na téere bi mu taalif mi ngi ko tuddee nasihatul ixwaan temps bi moo gàtt waaye nettal naa léegi ci arab ne nettal na ca xissa bu doy waar boo xam ne diggante yonent bi ak jibril la téere bi nasihatul ixwaan la fa muy waxee itam ne mi ngi moytu na ko noonu nit ñi ñuy jéem a diingat waliyu yàlla rawatina ko am ni cheikhul islam xaaj ibrahim nga xam ne mooy xoolaayu yàlla ci kaw suuf ba mu agsee nag ci xadis bii xissa bii may nettali indi na ko ci biir téeréem ba te masaadir yëpp da koy tudd ibnu ataila tudd na ko tudd na qaadi iyaad tudd na ñoom ñëpp tudd na leen ak kenn ku ne fa mu jëlee lam jëlee ci téeréem boobu nga xam ne mboolem akaabir yi nekkoon kuusi ku ne def na ci taqriis wax ci xam-xamam wax ci mën a taalifam ak mën a bindam ak mën a yeeteem ak mën a laaye biir ñi nga xam ne ñooy saalik ak muriid boo xam ne raaxib la mu ne yonent bi dafa mas a laaj jibril ne ko man daf maa yónnee arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yàlla daf maa yónni may yërmaande ñeel mbindeef yi sëñ daara laaj kaw moo koy nett ci téeréem boobu nasihatul mu ne yonent bi ne ko ndax suma yërmaande gi yow jibril am nga ci dara mu ko foog naa ne maa ci ëppale mu ko ci nan mu ne ko dama tiitoon tiitaange koo xam ne ma nga dalee ci ba yàlla bindee aadama ba bi la yàlla yónnee kon maa gënul tiit ci li yàlla bindee mu ne ko lu ko waral mu ne bu yàlla bindee aadama ne nañ ko sujootal malaaka mi gënoon ci gënoon a dàq jaamu yàlla mbindeef mi dàqoon a jaamu yàlla gën fu nekk nga sujoot gën a mokk kooku keroog ba mu bañee yàlla daf koo dàq laanu ko mu nekk iblis nekk seytaana ilaa yawmal abad keroog laa tiit tiitaange pour loolu bu ma dal te tiitaange googu dañut ba aadama jógee fi nooxoon muusa eesa ba ñoom ñépp keroog bi nga ñëwee ba aay ji wàcc di quwatin inda dil arshi makiin keroog laa soog a dal kon jàpp naa ne sa yërmande maa ci ëppale kon bu fekkee ne tey Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass def na jëf ji teralee ko sëñ daara alaaji karaw jël ko teg ko ci loxo lëj na bii nga xam ne Cheikh Mouhamadou Siraaju Diin moo ko jiite loolu teral xam-xam la teral liggéeyi baay la teral koo xam ne baay dafa wax ne al ilmu huwa al imaam te jàmbaar gi ma leen di wax bi mu ñëwee fii lim fi njëkk fekkee dafa wone xam-xam ndax ñëw di julli timis fekk ñuy julli jamaj am te kenn defaru ko maamoom yi kenn gàggantiwut gee jot bañ li xaamee mu dem taxaw ci kaw sijaada bi gaa ñi ne lii nag mu ne julli gi bu fekkee ne bu yàqoo ki nga xam ne kii moo jiite yëgut ne yàqu na ñi nga xam ne ñooy maamoom yi yëguñ ne kii yàqu na ba jamajuñ ko foofa ku muy jiite nekku fa man maay jiite daal di taxaw kàbbar julli julli ñu du julli julli bàyyi yëg ko bind leetar bii mu bind ne leen mooy seen élimaan ndax moo fi gën a xam te du Tayba rek Tayba ak mboolem li ko wër moo fi élimaan ku mënoon a yar la nag ku mënoon a yar la wax na wax boo xam ne histoire du ko fàtte mukk ndax bés dafa euh, taalibeem yi taalibe yooyu nga xam ne comme ku mel ni ñoom Moustapha Gueye daan nañ fi dem fanweeri ponkal ak juróom-ñaar ak daara ju ndaw ji tool yi nekkoon fi nga xam ne mooy euh, yoonu njóobeen bés na ne leen dem leen kiisaati ñu dem bi ñu demee saati lii sëriñ daara Ibou jàlloo nga xam ne moom ak Mouhamadou Lamine Thiam mi doon wax ci intaajam yi gën na ndax kenn ku ne yaa ngi firi alquran yaa ngi amee daara te moom Ibou Diallo commencé na ko ñaari firi alquran moo tëddil ko ko benn bi ci Sokoto benn bi kër Assane Diassé bi imam nekk la kooku keroog moo ñu nettali xissa bi bañ demee di kiisaati mu ne leen ay xandi laa bëgg am ñëw xam ne bool yu ndaw moom lañ bokk pour tappale bañ demee jël lu leen neex jaar na de sëñ daara di ñëw ñu jaar beneen yoon waaye xoolal ci maandoo bi mu ñëwee di jàngale kenn ku nekk nam la war a jàngalee la la jàngalee leçon ba moom leer waaye wax bii mu wax nag moo am solo lool mooy ne sëriñ buy jàngale man nga koo nax ba jël ci moom xam-xam waaye barke kenn mënu koo jël ci sëriñ te ñàkkoo kenn mënu koo jël ci sëriñ ci ñuqewoo ndax dañoo wax ne ñoom sufiyanke yi allahu laa yunaalu bi xiilatin wal barakatu tushtara te loolu dëgg la keroog ña ñàkkoon defoon xànd ñooy ñi nga xam ne ñoom la dégg ñoo amee leçon yi ñoo ame dërs yi ñoo barke ñooy jàngale ñooy firi alquran ña nga xam ne ñoo doon tappale kenn déggu leen kenn gisatu leen te loolu itam waxin la ndax baay bu waxee Seydi Aliou ne waxal gaa yi nañ ma liggéeyal ba nga xamee ne du pour man waaye pour ñoom la ndax bés dana ñëw bés boo xam ne képp koo xam ne liggéeyaloo ma da nga ndax liñ koy liggéeyal yëpp ci umma bi la tey tool baay baa ngi nii kër a ayda biñ guddee pakk yi duutoon pour baay sëñ Mahi bi mu ñëwee forage bi mu bënn duutoon pour moom kon xadamaat yépp dafa jëm ci jaami yàlla moom noonu la daan yaree ci tool yi noonu la daan miirasee te man gi nga wax naa ci arab ne man gi mu mënoon matière yi mboolem ulum yi ku ñemee tëdd ci sa kaw lal teglante say tànk téyowoo benn di jàngale lawal ba mu jeex ci moom lañ ko mës a gisee tëdd ci sa kaw lal teglante say tànk di jàngale saani ba mu jeex ci moom lañ ko gisee tëdd sa kaw lal di jàngale maqaama ba mu jeex ku ñëw mu ne la foo toll la joobul bilaadi ma al matraba ah ahabu ilaya min almartaba li anna alwulaata lahum nabwatun wa martabatun yaa laha martaba wa ma fihimu man yarubu shania wala man yushayidu ma raxtaba fala yaxda anka lumuuxu sharaabi wala tati amran ida mashtaba loolu noonu la ko daan defee te bu agsee ci miraas muy yuxraju daf naan ma ma beey yow lay waxtaalu bi boo ëndee beeñ mu ne la ki dee ngi nii lii la fi ba nangam la fi ba daal di commencé effacé lii kee ko moom lii kee ko moom daal di raatale suuf si te boo xamee ne ànd nga ak moom ci miraas noonu la ko deexee ku barke woon la man ñaari yoon wax na ma ne bàyyi la garanti te gis naa ko benn bi mooy dañu dafa am li nga xam ne mooy teen bii ci Taïba Niassène si kóor dugg ci ñu am ñetti fan Taïba naanuñu mboolem xale dëkk bi kuñ dugal nga daw nga bañ ñemewoo yàlla dimbale ko mu jàkkaarloog man ne ma barham mu naa ah, mu ma soo ñemee bàyyi la garanti ma dugg garanti bu mu feeñ maa ngi tooñ sax monsieur le ne ko da ngeen ma defar li nga xam ne lii mooy citoyen d'honneur dégg nga euh, te itam loolu emu am na koo xam ne damay toog ak moom bët bu set ku amoon may yàlla la te ci bàyyi la jëlee lépp mu ne dafa jabaram dafa gént ñëw na sëñ daara alaaji karaw lii gaa gént mu ne ko bakkal sa baaraam jigéen ngay taawloo teg te jigéen góor soog a ñëw te góor gi Mouhamadou Lamine lay doon te noonu la demee ku amoon may yàlla la te nee na lim am yëpp ci bàyyi la ko jëlee lim xam yëpp bàyyi ko ko jàngal kon ñu ngi doon waxtaanee góor gu mag goo xam ne euh, gu ragal yàlla gu bëgg cheikhul islam Hadj Ibrahim ku joxe ay xam-xam ku jàngal ay ulama koo xam ne ñim jàngal kenn ku ci nekk fa nga nekk ponk nga Mouhamadou Lamine caam boo ko fekkee Kër Maba da nga kontaan Ubu Diallo boo ko fekkee Sokoto wala nga fekk Kër Assane muy firi aljuran da nga xam nga te kënu noonu la looloo tax man bi ma fi jógee def naa fi juróom-ñaari at yoo xam ne mooy suma service militaire bokk na ci li ma koy gërëmee mooy teraanga ju rëy ju ma am ci ñetti doomi baay yi gën a mag mooy lettre arabe bi ma njëkk a bind Seydi Moolaay Alxaaj Abdullah ba ma demee Mirina sëñ daam mu baax mi di wëlóori sama papa moo ma doomukaay ma doom kaay maa Alxaaj Abdullah lépp loo xam ne yitteel la ko dana oo Seex Tijaan oo ma wax ceeg ñoom ma ne ko waaw mu ne ma leetar bi nga njëkk a bindee Taïba Niassène sëriñ bi Alxaaj Abdullah daf maa oo oo Cheikh na nañu xool leen suñ doom ji am na yaakaar ñaanal leen ko loolu lu am solo la moo tax euh, ba ma demee ba keer Mawlaay Alxaaj Abdoulaye yóbbu ma fa ma gis fleur yi mu fàttali ma tool yi nga xam ne moo nekkoon fii buñ daan dem tool jël ay xob laxas ko suñ tànk yi parce que amuñ dàll bu bukki yi sabee ñu sànni siwo yi bu ngoor bu gug bëccëgee ñuy wëttu golo di gas ñaam bi àll di lekk bu guddee mag ñi jël ay makkadoom dem di wëtti di mbaam àll yi jamono jooju kuy joxe dépasse gisuma ko fii ci dëkk bi li lay jox mooy sàq maa ngi dangay ngay dem ci pénc mi jël daal di natt dugub jël euh, euh, sànqal natt dugub jël tamaate jël dugub dugub ngay duggee ba mu jeex waaye nag li bàyyi waxoon ñaanoon ko ci rabbal ibaadi te maay alaaji moom mbindaloo woon ko Mawlaay Alxaaji Abdoulaye euh, Alaaji Karaw maasloo ko ko tey ñëw na ñépp gis nañ ko xéewal yi bëri na lool loolu nag nga xam ne mooy taxoon ba ma demee ba xaaxira Mawlaay Alhaaj Ablaay yóbbu ma fa ndax jëf ju baax duñ ko fayee fàtte bàyyi ñu ko jàngal ma jaar ci maydaan tahrir gis fleur yi ñu ne aydu rabi la mu fàttali ma basaab bu def fleur bi nekkoon ci yoonu tool yi ñu ciy jaar lay bi di wàcc dama ne yuzakkiru ni shahru rabii bi fawxiha ayaa man qadaynaaha bi tayba wa xawlaha amaama latiifin cilmuhu zaanahu tuqaaw min xulqihi zuhdun lahu lmajdu kulluha taraahu ida ma jaa lidarsi naashitan li anna lahu milku lfunuuni jamiiciha yucayiru saxbaanan wa fi lfiqhi maalikun wa uqdatu naxwin cinda darsheyki xalluha wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu